Euh, bu sol yére avocat am fas yéene euh, lay yi nga xam ne artisan yi de neen bu yàlla defee mu jotee ci bopp réew mi bokk na ci la nga xam ne mooy di ay mëbatam mooy fexe ba artisanat mu daal di koy yëkkati ci kaw noonu la ko yéene kaay gi xëy fësal neen daal dina jël ci tollu juróom fukki milliards ci francs CFA dugal ko wax tamit ci meeting bi nga xam ne Amadou Ba organisé na ko fële ca Paris la France mm-hmm. moom yi nag ah, programme gi mu am ngir teg Sénégal ci kaw yoonu yokkute noonu la ko yéene kaay gi di wàll fukki ñoo xëy fësal euh, enquête fësal yéene kaay gi ne ab délégation bu takkoon moom la Abdoulaye Amadou Ba

exemple moom la maître Moussa Diop Fesselan jomale ko ci kii di Aly Ngouille Ndiaye wax ne Aly Ngouille Ndiaye si boppam dafa bind dafa am benn lettre boo xam ni Euh, ab xaatim la ngoo xam dafa dox ci diggante président Macky Sall ak kii di Mimran mhm. mu soxal ci benn mine de diamant bu dekkee fële ci diwaanu Kédougou loolu nag fu mu toll nii jur na coow jamono wuy ji mais ak lu ci mënti am nañu jàpp ne daal mbir fu mu toll nii jur na coow ca palais présidence nañu la ko yéene gi di bés bi xëy fësale 24 heures lam ñu yéene gi di 24 heures ne euh, contrat mi euh, contrat bu jamaa la euh, biñ ne Sénégal daanaka da bëggoon exploité mu jël mbir daal koy jox ki nga xam moo di Mimran euh, loolu nag euh, ñu ci tudd loxo ñu ni mel waaye nag ci ñenn ci doomu aadama yoo xam ne ni seen xam ma ci kon ci wàllu suuf ak yeneen yu ni mel neen yoolu mënta nekk parce que Sénégal nekk réew moo xam ne na mu bindoo war naa mën a am jamaa nu ñu la ko yéen kaay gii di 24 heures xëy le quotidien yéen kaay gii di le quotidien les faux diamants de Moussa Moussa Diop noonu hmm. la ko yéen kaay gi xëy fësale nee na njiital Dakar dem dikk ba woon euh, bi euh, génne daal ab lettre confidentielle ci li mu wax mu soxol ñett ñi muy ku ci mel ni euh, Aly Ngouille Ndiaye ak kii di Mimran wax ne daal dafa am loo xam dañ ko ko xaatimaloon mu soxol benn exploitation mine de jama loolu nag Aly Ngouille Ndiaye yëkkati na ay kàddaam daal lañ koy weddi waaye bu ñu sukkandiku ci Ousmane Cissé nekkoon directeur des mines jamono Euh, l'info yéen a koy xëyee dellu soir ba tey ci Moussa Diop mi nga xam jamono ji ma ngay weejaan maanaam ma ngay sulli ay mbóot Aly Ngouille Ndiaye rek ci wetam ma ngay tontu di weneer di wax ne loolu nga xamu saf di wax na ko dara amu ci mu ngi ci yéene kaay gii di l'info euh, l'évidence Bougane Gueye Dany profité ci coow loolu daal yëkk ay kàddoom di sàkkoon ci état bu Sénégal ngir mu indi ay leeral ci tuuma yooyu nga xam ne ni maître Moussa Diop yëkkati na ko mhm. ndax loolu moom ëpp naa bàyyi mu jàll noonu la ko yéene kaay gii di l'évidence xëy fësal euh, yéene kaay gii di la turbine moo ne day bu ñu ko ay fat ci ginnaaw moom Bougane Gueye Dany waxoon na ko fi mhm. nee na am na benn deal koo xam dafa jéggi dayo koo xam am na ci wàllu jamaa fi ci Sénégal

yàlla euh, fexe daal ba buy génn ci réew mi mu nekk génn bu rafet noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale kantaan lu com tracte yi mel ak yi ñu koy tuumaal mhm. moom dafa jàpp ne bu doon suba la mu defaat ko day assumer lépp noonu la ko yéen kaay gi di réew mi xëy fësale euh, euh, comme réew mi Sud FM ñoom mhm. nga xam ni moom mooy di Ndiaga mhm. ci expert la ci wàllu élection ci ay laaj tontu gi dox ci diggante mo suñu naatangooy wax na aussi ci wàllu fiche de parrainage yi nga xam ne ko xaj ci Ousmane Sonko ak euh, décision bi nga xam ne war naa bàyyee ko ëllëg ci tribunal hors de classe bu Dakar euh, mi ci yéen kaay gii sud côté ñu Abdoulaye yor yor bi yor yor xëyee dellu soitam ci kàddu yi nga xam ne Matar Diop yëkkati na ko Cheikh Yérim Seck ama jambal tuumal Ousmane Sonko dafa ay koppar yoo xam ne da ko jote fële ci Qatar mm-hmm. euh, bañ tudd sax kii tarif Ramadan moom nag yëkkati ay nit ñi nga xam ne tudd turam di ko tuddal ay koppar dana leen yóbbu ci yoon mhm. ndax la ñu koy waxal di ko waxal Ousmane Sonko amul dara lu ci am noonu la ko yéene kaay giir yor xëy fësale euh, le soleil fu mu jëm nañ koy ubbi te mooy sanctuaire bu Popenguine mhm. euh, ñu ko doon def nag ci jiital si monseigneur Benjamin moom mi nga xam mooy archevêque bu Dakar mhm. yëkkati na ay kàddam kon daal di ñaanal président Macky Sall Euh, ñoom yi nga xam ne di nekk fidèles yi kenn ku ci ne yaa ngi doon fësal sa mbégte jëmale ko ci sanctuaire boobu lee noonu la ko yéene kaay gii di la soloy xëy fësale euh, lu fës ci stade wax ci Afrique euh, CAF nga xam ne ci tànki tànn mhm. soor bi gën a xarañ ci Afrique sori nag changement du ci bokk donte la moo ko jëloon daaw mm-hmm. na suñuy njort ne mu tàbbi ci loxo ko ci mel Lamine Camara ak Amara Diouf maanaam suur yu ndaw yi nga xam ñoo gën a xariñ mm-hmm. kon gi ne Lamine Camara ak Amara ñu ngi ci yoonu euh, kii di euh, euh, man ci ñu ngi ci tànk yi Pape mm-hmm. la ko yéen kaay gi di estat xëy fësale donc suñu lamb. yaa ngi nelaw de suñu lamb. <laughs> fajar gi suñu lamb. ñu wax ci kaw ki war a dox ci diggante. Balla Gaye 2 ak kii di Siteu. Euh, bàyyi njaay euh, Ndiaye ah, wax na si waaw nee na euh, lu jëm ci cent cinquante millions yi nga xam si te mu koy laaj moom du ko xalaatu ko. <laughs> xalaatu cent cinquante millions. waaw cent cinquante millions téeméer ak juróom fukki millions. ak fu lamb ji toog di laaj. nee na xel xalaatu ko. Mm. nee na xam na li si te laaloon ci diggante mag la ak di guerre numéro deux. Mm-hmm. bu fekkente nangu na.